ndox yooyu ndegam dañuy génne ci ron doj woowee day mel ne kon fa ñuy génne moom dafa lëndëmoon suñ génnee ci biti nag ak ni bëccëg bi leere day mel ne kon ku génne ci lëndëm ñëw ci leer ndox yooyu nag suñ amoon xel mën nga ne kon dañoo bëgg ci loolu génn ci lëndëm nga ñëw ci leer ga wama in tataxaqaqu déet ñuy wóorlu ñoom ndox yooyu wama in tataxaqaqu min annaha ci naka ñoom asbaxat mujj nañu mooy asbaxa bi firi xëy rek taliixatan di aji liibar mooy bi ñu firi aji boy xataa tasiila ba danañu sottiku bi xudóoyin ànd akuk dal wapp mi naanin akuk dal ba tey lital taq ya ngir ñu tase bi miyaahi yanaa bi xasali ci ndox yi ballukaay yi alxasal wal xadiid ak alxadiid was saliibi ak saliib allati ya nga xam ne taxmilu danañu yanu ilayha jëme ci ñoom taxiyatal jibaali nuyóob doj ya wal awdiyati ak xuriya ndox yi waxoon ne ñooy génne ci ron doj wu dëgër woowee la ne buñ génnee ba ci bitti mu wóor leen ni kat fii mu nekk nii libre nañu mën nañoo jàll dañu daal di jàll di daw ndànk-ndànk mel ne amuñu yàkkamti ànd xel mu dal dem nag ba taseeg ndox yi nga xam ne ñooy ndox yi fonte ni alxasal ak alxadiid ak asaliib mel ne buñ taseeg ndox yooyee dañ leen di jottali nuyoo boo xam ne doj yi ak xur yi ñoo leen ko yóbbante woon ne leen bu ngeen demee ba ca ndox yee balle ca alxasal ak alxadiid ak asaliib na ngeen nu leen jottalil ab nuyoo dégg nga waxin yooyu ni mu doon waxi jeeñeer fi mu toll ay ndox mel ni ay ndox ñoom la ay doj ak i xur yóbbante woon ab nuyoo ñu war ko jottali yeneen ndox wa jalas naa te nu toog taxta shajarati xarnuubin ci ron garabu xarnuub waa rifatin guy aji sëq wa rafa naa te nu yëkkati ab saara naa sunuy bët idal jibaali jëm ca doj ya fa isa biha amti lu may ci ñoom rek fii xaalatin ñi ngi nekk ci am mbir fatriyatin muy ko jóg bindum yàlla bu sell saa dijatin buy aji sell mooy bu sempale famaa lu màgg-màgg ajj ma la rafetal na alfitrata bindiinu yàlla bi alfitrata bindiinu yàlla bi wamaa lu màgg-màgg ab daxa yéemuloona mën a jiraha ay xoolukaayam boo ko delloo ci alfitrata wala mën a jiraha seeni xoolukaay boo ko delloo ci doj ya ban àggee dana toog ci ron garabu xarnóob goo xam ne gu dëll dëll la nu yëkkat nag suñuy bët di xool doj yi gis rek doj yi daal ni ko yàlla binde ni mu selle ak ni mu yéemoo da nga yéem rek bindum yàlla ak foofu boo ko dee xool na ko yàlla melal azaq-zaqatu sabuk picc yi wala ciic ciiji gi picc yi ciic ciiji laa tasaalu du deñ tam baxisu di yolliku mooy di bàyyi ko mina sujeraati bàyyi ko ci xeeti garab yu ndaw ya watt yóoru te njanaaw ya tu allifu danañu composé asraaban asraaban ay mbooloo ci gannaaw ay mbooloo tantaqilu yooyu danañu déplacé bilan xitaahin ci lul ak dog ci lu dul ak dog min saxratin bàyyi ko ci aw doj ila raabiyatin jëm ci aw tund wa min shajaratin ak bàyyi ko ci garab ila xaarin jëm ci am xunti mah joorin mu di mu ñu tong maanaam mu ñu jàmbu daal picc yi da ngay dégg nit ñi sabe ci garab yi dafa mel ni sax janaaw yi boo leen dee seet dañuy def ay mboolooy mbooloo di déplacer di toxoo ko toxuwaat daal maanaam bàyyi ko ca dojwee dem ci aw tund wala bàyyi ko ci garab gee demaat ci beneen xunti moo xam ne day mel ne dañ ko jàmb woon kenn nekk fa woon wa azharu rabihi tóortóori lolli bi tax na u danañu bég bi xolalihaa ci seen koddaay la aljamilati lay aj rafet wala miyaaw te ndox ya tasooru danañu jaqiku watu zam jiru te ñuy soow fi sayrihaa ci biir seen ndox fata dooru te ñuy wandeelu xalaa nafsihaa ci seen bopp aw tan sabbu wala ñuy sottiku min fa waxi suxóori bàyyi ko ci kaw doj ya bi shallalaatin ci ay setedoo fiddiyatin yi ko jox xaalis maanaam yu mel ne xaalis shafaafatin yu yaraaxa yaraax dañuy wax maanaam lu sew lu yaraax loo xam ne boo dee xool di seen la ca kanamam ndax yaraax gu mu yaraax daañu ko wax kon lu keleer lu kaleer mooy maanaam lu leer wala transparent transparent daañu tumma laa talbasu topp duñu sax an tajriya ba ñu daw bi xuddoo in ànd ak dal wasalaamin ak jàmm boo gisee tóortóori lool li na mu mel foofa day mel ne dañoo ànd ak xel di bég ci koddaay ya nga xam ne moom la ñu woddoo muy koddaay yu rafet rafet day mel ne tóortóor yi dañoo xam seen bopp xam nañu rafete di bég ci koddaay lañu sol ndox yi itam dañuy rewolt ànd ak coow lu bare bari bu ñu dee daw ñoom ndox yi mën naa am ñu daw di wër seen bopp mën naa am ñu sotti ku ànd ak doole jaare ca kaw xeer ya doon ay chétédoo chétédoo mooy ndox muy wàcce ca kaw jëm si ci suuf ndox yooyu nag mën nañoo wale ca kaw dojee di wàcc doon ay chétédoo yoo xam ne dañuy mel ni xaalis rafet lool leer lool bu ñu nee dañoo wàcc ànd ak doole noonu nag xawi ko ca kaw dañu wëlbatikuwaat rek til la bët tàmbalee dawaat ndànk-ndànk ñoom ndox yooyu wa nahnu nun fii haadihi lbuqxati ci bile pàkk naxsabu danañu jort am fusanaa sunu bopp ashada ibadillahi nu gën a texee ci jaami yàlla yi kayfa laa naka la déet maanaam nu ñuy bañ a jàppee suñu bopp ne noo dàq ab dund ci jaami yàlla yi wa naxnu te nun fii jannaatin noo ngi nekk ci ay àjjana wala nga ne ay jardin tajri yooyu dana daw min taxatihaa ci seen ron al anhaaru dex ya wa tasdaxu tey way fiihaa ci ñoom al abtiyaaru njanaaw ya wa tamtalixu tey boy albutoonu biir ya min xiqaalihaa bàyyikoo ci séenug rat maanaam séenug yeew wala séen boom li taakula ngir ñu lekk ñoom biir yi maa turiidu lañu bëgg fa tabaaraka barkeel na allahu yàlla ahsanul xaaliqiina muy gën jaarafeti way bind ñi mu ne ba nekkee ci béréb boobee daal danoo jàppoon ne mboolem ñi yàlla sàkk yooyu jamono noo ci dàqale ab dund noo ci gën a texe mooy noo ci gën a neex ab dund ndax fa nekkoon da di ay jardin yoo xam ne ni ñuy melale àjjana dex yi wal ca suuf picc ya nekk di sab sab yu neex a neex te it ñam woo bëgg rekk yaay taamu daal di lekk wa nga bëgg loolu tax na daal dafa mel ne danoo nekkoon ci biir àjjana nekkunu ci àdduna mu yéemaat yàlla nag yàlla mu màgg mu sell mi moo sàkk lépp keneen nag mën naa jël ci li mu sàkk defaraat ca ñu la koy askane ne yaa ko defar fekk na ci dëgg-dëgg moom yàlla rek moo defar waaye nag la mu def ba àggal bu ci keneen jëlee defaraat ca leneen daañu ko koy askane moom kooka ne kookaa defar loola fekk lépp moom yàlla ndax xel ma ko kooka defare ak matériel bi yépp yàlla alxasaadu góob daañu ko wax alxasaad bi fathil haayi wala alxisaad bi kasril haayi alxasaadu fi fasli sayfi ci jamono été yabulu ko dana jot alxamxu bele ashuddahoo ab dayoom wala nga ne kàttanam tasfarru dana gel assanaabilu gub ya muy gubi bele yi yaxinu dana jot waxtul xisaadi waxtu góob wa yaxdoo dana xëy alfallaaxoona baykat ya ilaa suhoolil xamxi jëm ci tooli bele yi suhool mooy bi firi ay joor weesu nga ko ay yoon jëm ci joori maanaam tooli joori bele as safra yi aji gel mu dellu ci suhooli alwaasihati aji yaatu alwaasihati yaxmiloona danañu yore al manaajila ay ngóobaan alqaatihata yadi aji dog yaxnoona danañu sëgal aljuzoha datti ka tax yi yadummuuna danañu tàpp suuqal xamxi ketaari bele ilaa sudoorihim jëm ci seeni dënn suuqul xamxi ñu koy wax ketaar bu ñu dee góob da am lu ñuy daggaale ca gattax ba mu ànd ak buuboo loolaa tudd ketaar mel ne boo fàq fi mbool day am loo daggaale ci gattax ba ndax buy séndal mbool mi man caa jàpp loolee ñu daggaale nag ca gattax ba te bokkut ak la am pepp daa taq rek ca la am pepp moo tudd suuq yaqta onaha dana ñu leen dagg wayul xoonaha dañu leen di sànni xalal ard ci suuf yusri on dana gaaw alfitiyaanu xale ya wara ahum ci seen gannaaw yaa jimaxoona danañu dajale arrisama leew ya yu allifoona danañu composé min xaa ci ñoom risaman ay leew wala ay takk kabiratan ñu di aji rëy jamonoy été ci la beley ñor bu baax a baax bu ñoree da nga koy xàmmee ci gub ya day puur su boobaa kon góob jot na baykat yi daal di xëy jëm ci seen tooli bele yi nga xam ne boo dee xool bele bi ma nga puur muy tool yu yaatu dañuy yóbbaale seeni ngóobaan nag buñ àggee ci ak taat maanaam taatu ak bele dañuy sëgal taat wa ñu koy bés mu sëgg ñu yëkkati nag léegi guub wa fa tolloog guub wa di cëpp di ndagg guba fa pepp ma yam dañuy daggaale ci gattax ba loo xam ne nii day ànd ak pepp ma mel ne booy dagg mbool rek nga xam ne day am loo daggaale ci gattax ba ngir nga mën caa jàpp booy séndal mbool mi ca taal ba booy góob dong nag moom bu dee fii ci nun dañuy dagg guba rek fa tolloog fa pepp ma yam booy fàq mbool rek nga cay boolewaale ca gattax ba loo xam ne nii booy séndal mbool mi man caa jàpp dafa mel ne ñoom nag buñ masaa di góob bele boobu day am lu ñuy daggaale ca gattax ba mu ànd ak lu ñu góob rek daal di bàyyi mu daanu goney gaaw di ko for di ko dajale mu def ay leew wala ay sëq ñëwal batiku nag boole sëq yooyu muy ay sëq yu mag a mag mën naa mujj sax di ay jaag alal baydari ca bojjukaay ba tulqa def na sànni risamul xam hi leewi bele ba xalal bayaadiri ci kaw bojjukaay ya te zallu danañu yendu ba danañu sax muddatan ab diir tawilatan bu di aji yàgg taxta ashihati shamsi ci ron ceeñeeri jant tey basu dana wow asuuqu ketaar ya jayidan bu baax a baax totraxu def na sànni assanaabilu gub ya xal ard ci kaw suuf yamuru dana wéy aleha ci seen kaw an nawreju chariyo wala bataas bataas dafa doonoon bojjukaay boo xam ne dañu wut yaari yëkk mu ñaari nag mbaaleen lu mën a xëcc su ko defee ñu takkal ko ko nag mu di ko xëcc ab machine lay doon boo xam ne dañ koy awale ci kaw gubi bele yi mu di ko riij nag di teqale pepp meeg lu bokkut ak pepp ma muy mbojjit ma yajlisu dana toog xale xaa ci kaw chariot boobu ak daarisu aji bojj ja darasa day firi bojj na ni muy firee darasa jàng na yasooku dana jiital albaqarata nawa yan fasilu dana tàggalikoo alxashu mbojjit ma wala xatax ba xanil xab bi walis pepp ma mu ne bu ñu góobee bele bi dañu dem ba ca dàgga ja mooy bojjukaay ba ñu wàcc ko fa weer ko fa nag ba mu wow koŋ nga xam ne gattax yi nga xam ne ñoo àndoon ak gubi bele yi dañu mujj wow su ko defee jël nag gubi bele yi daal di koy tasaare ci kaw suuf si jël nag machine bi nga xam ne moo war a bojj ñu koy tuddee an nawraju chariot wala bataas chariot boobu mbaa bataas boobu day am lu koy xëcc mën naa nekk nag bu doon ci noonu xëy na nu def ko fas mbaa leneen dana am nag koo xam ne mooy toog ci kaw chariot bi mbaa mu taxaw ca ko defee naw yi dox nag fekk machine boobu di chariot bi ñu aw ci kaw gubi bele yi nga xam ne moo nekk ci suuf di ko riital nag di teqale pepp mi ak xatax beeg noonu la ñuy bojje bele bu dee foofa ca ñoom an nawaariju chariot yi wala bataas yi al aliyatu yay automatique al hadisatu yi aji moderne tafsilu danañu tàggale al xasha mbojjit ma wala xatax ba anil xam yi walis bele ba bisul xatin ci lu gaaw a gaaw am na xeeti machine yu yees yoo xam ne automatique lay doon yu dëppook jamono moom bu dee bojj mbojj mi day gaaw mu daal di teqale pepp mi ak mbojjit ma ca des ak tadriyatu jëriga maanaam jëri ko moom bele bi baada darsil xam yi ci gannaaw bojj bele ba tu àllëfu def na dajale bayaa diru ay jali mbojj minal xam yi ci bele wal xashi ak mbojjit wala nga ne xatax yaxmilu day yore almudarri aj jërija midraatal xam hi jëriwukaayu bele ba midraat mun ñu wax fourche fourche nag dañ koy wax noonu fourchette fourchette yooyu nga gis ñu koy liggéeyee ci buñ dee jëri fi gerte ki wax fourche waaye na nun fourchette lan ko miine yantaziru dana néggandiku xoboo ba riyaaxi uppuk ngelaw ya yebb daw dana tàmbali amaliyata tadriyati liggéeyub jëriga xamaliyata ngi wax opération waaye xeet liggéey wu ne rek xamaliya la balaa doon opération bu dellu ci yaram rek ñu wax al amaliyatu al jiraaxiyatu booba lay doon opération bu dellu ci yaram niki yaramu nit yatob taayaru dana naaw alxashu mbojjit ma ila masaafatin jëm ci ab distance ba'idatun bi aji sori yasqutu dana daanu alxamxu bele ba ila masaafatin jëm ci ab distance muy ab béréb rek xaribatin bi aji jege tuxaddaru def na préparé al aqyaasu ay saaku tum la u def na leen feesal bil xam ci ca bele ba tursalu def na leen yóbbu daañu leen yónnee waaye mooy yóbbu rek ilal mataaxi ni jëm ca moulin yi moulin yi mooy walukaay yi man nga ne machine yi wal yi yu samma def na tudde alxashu alxashu tibb nan xatax yu baaxu def na ko jaay taaman mbir mum di aw ñam lil xayawaanaati ñeel xeeti jur yi wala nga ne xeeti ndundat yi dafa wax ne bojj gi bokkutul jëri gi li nga gis rek buñ góobee ba àggal gub yi ak lam àndal ci xeeti cuq ak xeeti xatax ak xeeti bant yi ci bokkut moo tudd alxashu mbojjit gannaaw bu ñu bojjee nag ba yooyu dajaloo day am ku jël fourchette bàyyi ba muy ngelaw nag mu tàmbalee jëri su dee ngelaw rek mu daal tàmbali jëri ci fourchette bi bu dee jëri da ngay gis lu bokk ci xeetu xatax wala lu bokk ci xeeti cuq yeeg bant yi ci bokkut day naaw di sori di sori di sori li ñu soxla muy pepp mi nag moom mooy wàcc fañ ko soxlaa fu jege jege ni nga gis rek buñ dee jëri fii dugub mbaa buñ dee jëri fii gerte bu dee gerte moo nga gën a miin li koy jëree noonu da ngay gis ngooñ mi nga xam soxla wuñ ko moom day naaw di sori gerte gi soxla nag moom di dal fa nga xamee ne mooy rek fa kay jëri tiim ca kanam ki dañuy andi nag ay saako yoo xam ne ci la ñuy def bele bi buñ duyee ba mu fees ñóbbu ko ca machine yi wala ya li ñuy wax alxashu nag alxashu daal mooy mbojjit rek alxashu maa yataxallafu min alxamxi wa naxwihi baxda istixraaji xabbihi boo génnee pepp ba noppi daal la bokkut ak moom di am mbojjit moo tudd alxashu dañ ko wax nag xatax loolu nag dañ koy jaay ndax mën na xontub jur li ngay téye ngooñ mi fii di ko xonte jur rek noonu lañuy def ñoom itam mbojjit moomee ba tey sax nun sunu mbojjitum dugub bi suuna ji mbaa saañu muy xatax boobu daanu koy xonte ba tey aconru waxe bu dana sopp xasaadal xamxi góob bele lakinnahu waaye moom nag xamalun liggéey la mutxibun buy aji sonle li anna shamsa ngir naka jant ba tuxriqu dana lakk al aji saama yaram ya mu ne góob bele bi bu ñoree lu ma neex la waaye nag lu sonle la ndax day fekk naaj wi tàng boo dee góob nag naaju di lakk sa yaram waxi bu danaa sopp aljuloo sa jekki xalal nawra ji ci kaw chariot ba kathiran lool laakin na ni waaye man axshaat naa ragal min duwaari rësi ci wëndeelu bopp ñu koy wax miir miir dafa wax ne taxaw ca kaw chariot bi mbaa ma toog ca chariot bi di bojj ba tey lu ma neex la waaye nag damay ragal li ñuy wax miir dal ma su ma toogee ci kaw chariot bi mën naa ma miir xaasi datul xam yi machine ba ñuy góobe bele al aliyatu bay automatique mu fii datun aji am njariñ la jiddan lool mu ne am na machine bu yees bu ñuy góobe bele mel ne moom automatique la am na njariñ lool te noppile mu ñëw ci التوسيع من مظاهر النشاة بقنا تي من رغي اكتيفيتي والرقي اكوب يك في البلاد تي دكي لباي أن يعتاد مباحو بعض أبنائها lenn ci ay doomam man nga na it fil bilaadi ca dëkk ya bañ koo jagleel libaa añ ya ataada mu baaxoo baax du abnaiha lenn ci ay doomam alqiyaama taxaw ga bi ma bi ma arida ci ay exposé wala ay foire tur yi yooyu danañu wan annaasa nit ña intaaja ay diihim produiru seeni loxo waxu xoolihim ak seeni xel intaaj moo jural rek wala nga ne amal ki wax rek produire waaye rek mooy amal wa min at-tabihi bokk na ci la amul warante an la ya'rida mu bañ a wane almar'u camsa illa ahsana ma ndare gën jaa rafet la nga xam ne yuntiju dana ko jural mbaa dana ko amal wa min at-tabi'an yi bokk na ci la amul warante aydan ba tey an najida nu am an najida nu am faidatan njariñ wa mutxatan ak bànneex fi mushahadati hadihi al maaridi ci jàkkaarloog yi lay exposé dane bokk na ci liy wane ne réew ma am nañu activité ak cawarte ñenn ca doomi réew ma def ay exposé wala nga ne ay foire di ca wane la nga xam ne ñoo ko liggéey ci seeni loxo mbaa ñoo ko taalif muy xeeti yéeme yéeme ñu koy wane ndax bëgg ñu gis ko la ñu liggéey ci seen loxo muy xarala mbaa ñu génne ko ci seeni xel xam ne xel ak xalaat moo ko génne mën naa aju ci taarif ak lu ko muru mën naa aju ci leneen yooyu la ñuy faral di wane ci exposé yi mu ne amul yorante ne nit ku ne bu dee wanee fu mel noonu la mu def ci loxoom mbaa la mu génn ci xelam mu sell faaw day tànn la ca gën a rafet gën caa yéeme mu wane ko loolu amul warante moom ba tey amul benn warante ne dem seetaan yu mel noonu des na ci am njëriñ amee ca bànneex amee ca wa kathiran lu bare bari maa lu jéggi dayoo ci bari sañatu déggoon naa bi ma aridi imtilias ci exposé bu imtilias asiraax yi bay ko jug mbay wama ak la nga xam ne yoo arabu def na ko wane fii ci moom fa xasattuhu ma jublu ko maxa baadi rifaaq yi ànd ak lenn ci samay moroom wala tasal bu laaj nag xani soo bati walis jafe-jafe ba ëllët yi ba nga xam ne laa xëy naaxaa tase nanoo moom lil wusuur ngir àgg ila makaanil xardi jëm ci palaasub wane ga ñuy wane mbir yu yéeme ya li ànd turuqaat yi ngir naka yoon ya kaanat nekkoon nañu mal aadi way fees bi sayaaraati ay oto wa darajaati ak i welo wal mushaati ak way doxog tànk lu bare bari daanaa dégg ñu wax exposé bu intilias ñu fay wane lu aju ci walu mbay ma demone fa nak and ak ñenn ci samay morom waye nak bul jema laaj mukk jafé jafé ba nga xamné monu fa dal ndax ministre fexé danaka ba ag ci fañi wone mbir yu yéme ya ndax yoon yi da fess del ak auto ak yelo ak ñu dox ci tank nga xamni dal dem ba ag fofu lu jafé jafé la wa akhiran ci ak mucc wasalna ag nanu fa malu mag mag ajmala rafatalna mana lirat tabihati xolukaayu natir ba fi tilkal buqahati ci bobé bak at tayyibati ba eji tay min lubnana ci lubnan basatinul burtuqali